Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, voici quelques flashs sur l'information présentée par Cheikh Oussako. Les organisations des droits de l'homme, la et la Ligue sénégalaise des droits humains lancent un appel de calme et de sérénité tous les Sénégalais de ne pas sombrer dans l'escalade la violence. Ils ont également lancé un appel au président de la République et aux leaders politiques de veiller euh, pour éviter des soubresauts politiques à l'intérieur euh, Les populations de Kermassar haussent le ton depuis plus de 4 jours. Ces populations déplorent le manque d'électricité dans leur localité. Ils ont lancé un appel au DG de la SENELEC de diligenter dans les plus brefs pour désamorcer la situation qui prévaut actuellement au niveau de Kermassar. L'administrateur du PASTEF et Am Satafal sont retournés en prison. Ces derniers sont accusés Euh, d'insurrection populaire, euh, d'insurrection euh, populaire. Parlons tout de l'actualité nationale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Doussa, a donné hier euh, le ton devant son ministère euh, concernant cette euh, pandémie du coronavirus, des dos de vaccins. Euh, C'était en présence de plusieurs personnalités politiques et religieuses. Le ministre a lancé un appel aux populations de garder le calme et la sérénité.

l'ancien président Mahama Ousmane, 44% euh, des voix. enfin, l'ambassadeur d'Italie a été assassiné avec son garde du corps. Leur corps ont été par vol euh, Air Force italienne. Dans une poignée de secondes, ce sera la version off. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di gërëm di leen sant ànd ak seen les programmes de Salam Vision askan bi ñu leen di gërëm leen sant xam ne kuréel yi yow si mbirum di xeex ak wérof doomu aadama di waa RADDHO Amnesty International Ligue sénégalaise des droits humains ñoom ñi woo askan bi ñu ànd ak ñu ànd ak yar dal ak ñu ànd ak yar euh, que mbir euh, Sénégal ñoom la ñuy woo parti politique yi ak kujje bi euh, société civile askan bi yëpp mën a toog waxtaan génne Sénégal si ay jiixi jaaxal population yow fële ca Kër Massar ñeenti fan yi bu leen ñoom ñi ngi xeex amuñu courant ñi ngi woo waa seen rek ak nguur yi mën leen gestu euh, jël leen indiwaat courant si bërëb yooyu dem nañu dox doxam ñaxtu fële ca parcelle euh, fële ca unité 17 euh, fële ca Kër Massa. parce que nu suñu gaal dafa am benn tiis bu metti fële ca Pikine bu bees benn waay boo xam ne ak soxnaam dañu fàttu seen biir nekk fële moom fële ca tali bu bees. askan bi ñeew ki seen naqar ñoom nag ñuy woo population yi ñaan rek daal sapeur pompier yi ak police gendarmerie démb lañu fa doon teew ngir ibbi enquête bitim réew la ñuy doxantu fële Niger Mohamed Bazoum moom nag moom moo jël ndam li fële ñaari tur élection présidentielle fële ca Niger moom nag kii gagné ki xam ne mooy Mohamed Ousmane am na 44 pour cent des voix euh, fële ñu ko tijjee fële ca euh, RDC bu Italie bi ñu ko boobee ak garde corps am ñoom nag jot nañu dem euh, delluwaat ne fële ci réewum euh, Italie mu yaay ay xibaar si kàllaama Kocc Barma mbokk yi ñu leen di gërëm leen beneen yoon incha allah.